entre l'Égypte et le Sénégal reste un peu déficitaire par rapport aux opportunités. Le président, son Excellence Al-Sisi, a jugé nécessaire, avec son homologue, le président Macky Sall, de renforcer cette coopération bilatérale parce qu'il y a un manquement très fort au niveau du secteur privé sénégalais. C'est même pas comparable. Sur euh, l'importation, aujourd'hui, l'Égypte est à plusieurs milliards, dizaines de milliards, et au Sénégal, le Sénégal n'a même pas atteint le milliard. Donc cela veut dire qu'il y a vraiment du travail à faire pour, pour euh, renverser la tendance. C'est pourquoi nos partenaires, le conseil d'affaires de l'Égypte dirigé par mon ami et frère, M. Khatib, a jugé nécessaire de se déplacer, venir au Sénégal, renforcer les liens et enlever les barrières qui sont entre nous. Il faut en citer qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, nous avons un problème de ligne sur l'Égypte. Aujourd'hui, sur le plan euh, maritime, nous n'avons presque pas de liaison sur Dakar direct l'Égypte. Nous n'avons pas de liaison sur le plan euh, aviation, nous n'avons pas une ligne directe. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de renforcer aujourd'hui le conseil d'affaires et de redynamiser aujourd'hui le conseil d'affaires et travailler davantage pour renverser la tendance. Voilà un peu ce que nous voulons faire. Euh, nous avons eu pas mal de secteurs. Aujourd'hui, nous avons un problème de la prise en charge de la santé au niveau du Sénégal. Avec, comme vous le savez, cette pandémie, la Covid, les Égyptiens sont très développés en matière de santé. Ils nous ont proposé de renforcer nos liens sur le plan sanitaire, en matière de médicaments, en matière de plans cliniques, en matière, en matière. Nous avons aussi, dans le secteur agricole, beaucoup de partenaires qui sont encore là et qui cherchent à pénétrer le marché sénégalais en même temps que l'agroalimentaire. Donc, je pense que nous avons vraiment du travail à faire. C'est à nous maintenant de s'ouvrir. Les Égyptiens sont déjà là. C'est aux hommes d'affaires sénégalais de travailler dans un partenariat public-privé pour pouvoir arriver à, euh, à, euh, aux ambitions attendues par nos deux chefs d'État. alors euh, en fait, euh, d'abord, nous, nous avons ce que nous avons. Vous ignorez pas nos matières que nous avons, mais c'est à eux de voir. Ils sont, euh, on a beaucoup de choses. Parce que aujourd'hui, sur le plan de l'équipement sur le plan scolaire, sur le plan de la santé, sur le plan de l'agriculture. Le Sénégal est un pays stable aujourd'hui et qui accueille pas mal de pays dans ce sens. Mais aujourd'hui, l'Égypte reconnaît que l'Égypte n'a jamais bénéficié de l'Afrique. L'Égypte n'a jamais bénéficié de la, de, de, de, de la sous par rapport a ses limites. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons ouvert nos portes et l'Égypte aussi à décidé de booster son économie, booster ses hommes d'affaires à venir s'implanter. Ils sont en train de faire le tour d'Afrique. C'est pourquoi il a un forum qui suit aujourd'hui pour pouvoir aller dans des rencontres de B2B pour savoir chacun en ce qui le concerne où est-ce qu'il peut prendre ses intérêts. ginnaaw bi ma euh, euh, euh, encore ni ñun ñu ngi gërëm bu baax ñaari président de la république yi nga xam ne mooy président Al Sisi ak le président Macky Sall ci xiirtal gi ñu xiirtal seeni homme d'affaires pour ñu ñëw liggéeyandoo pour ñun ñaari dëkk yëpp ñu am ci njariñ li nga xamante ni bi moom moo waral lii dañu seet ni lay jóge Égypte di dugg ci senegal tey bokk na ci toll na foo xam ne ëpp na lu mat fukki milliards ak lu topp jëm ñaar fukk te Sénégal amul lu toll noonu amul sax lu toll milliard luy jóge fii jëm Égypte ñoom ñaari kilifa yooyu nag décidé ni loolu dañ ko bëgg a changer ni Sénégal am na loo xamante ne bii waras na koo mën a jëflante ak Égypte pour que mu am ay njariñ yoo xam ne dana bàyyeekoo Égypte ñëw Sénégal mais bàyyeekoo Sénégal jëm Égypte homme d'affaires yi dugg si waat fii. mën fi amaat seen place liggéey fi liggéey bi nga xamante ne bii moom la nit ñi di xaar ñoom it seen bëgg-bëgg mooy dugg Sénégal ndax bokk na Sénégal li mu jëkk am ci liw ëpp solo ci maanaam ci wàllu koom mooy dalugu réew mi ak jàmm ji ñu am ak liggéey bi nga xam ne nit mën na ko fi liggéey dugal fi alalam te du ci am benn risque loolu bokk na ci li seen président ni leen jóg leen te jël seeni bagage ngeen jëm biir Sénégal kon nag ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñoo war a farataal jëf joojee téye ko looloo indi xaatim bii nu xaatim tey pour wane ni dëgg dëgg dëgg réew mi ji gën na jógaat jokkaat loxoom jëmale ko ci Égypte ak homme d'affaires yu Égypte ñu ngi leen di xaar ci wàllu santé ñu ngi leen di xaar ci wàllu agriculture ñu ngi leen di xaar ci wàllu équipement ñu ngi leen di xaar ci wàllu éducation xam ngeen ni Égypte dëkk bu bëri xam-xam la ñu ngi leen di xaar aussi ci wàllu tourisme ndax Égypte dëkk bu bari comme koom la ci wàllu tourisme yo aviation bi nga xam ne léegi nag li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ni nemmeeku nañ ko te bëgg ñoom ñaari chef d'état ñu dimbaluñ ci mooy avion boo xamante ne bi dana jógee dakaar dem Caire muy vol direct te loolu ah dinañ ko jottali président Macky Sall mu waxtaan ceeg naatangoom le président Al Sisi ndax bokk na ci li nga xamante ne bi lu ñu laaj la ñun suñu biir homme daffaire sénégalais yi ak homme d'affaires égyptien bu ñu sañoon it dana am bateau boo xamante ni dana jóge dakaar dem Caire pour yoon wi gën a woyof jàppalante bi gën a woyof Sénégal moom ci wàll woowu jóg nañ ci jóg boo xamante ne bii ba ci li nga xam mooy tax yeeg yëpp am nañ ci ak ak ak ak ak ak yaakaar goo xam ne ku fi ñëwee dina fi am jàmm kon ñoom xam nañ ne réew mi réewum jàmm la te bëgg nañ fee toog. na gis boppam euh, ci euh, partenariat waaw xam nga looloo tax ñun ñu xar suñu tànk tubéy ndax bu njëkk euh, ba tey jii li ñu jàpp mooy lu mat fukki milliards ak juróom-ñeent dana jóge Égypte dana jóge fii di dugg Égypte. te la nga xamante ni bi ñun Égypte la ñuy dugal Égypte matul milliard looloo tax ñu ni nañu soppi doxalin pour ñu nekk ci kenn ku ci ne am ci njariñ muy njariñ ak njariñ mais tey njariñ li Égypte la gën a ëpp kon looloo tax homme d'affaires sénégalais yi ñoom it fas yéene jàkkaarlook ñoom waxtaan ak ñoom jëflante ak ñoom pour njariñ ni nekk ci ñaari réew yëpp te tolloo baa ñu ëppale ci ñun ñi waaw ndaje yi mooy li mu jural économie Sénégal mooy farlu ci alal ji fi ñu yokk ko entreprise yi nga xamante ni bii dañu bëri doole nekk ci àdduna ñu ñëwaat ci biir réew mi bokk ci bokk koog waa réew mi parce que man li nga xamante ni moom laay waxtaane du caagi nag waa Égypte ñoo ñëw liggéey liggéey bi dem man li nga xamante ni moom mooy sama sama taxawaay mooy waa Égypte ñëw lëkkaloog homme d'affaires sénégalais yi lijjanti ko bokk liggéey bi kenn ku ca am ci Sénégal am ci Égypte am ci waaye nekkuma fi pour jàpp ni Égypte ñoo war a ñëw rek buux li fi am dem déedéet ñun dañu waa Égypte dañuy ñëw ñu lëkkaloo jàkkaar jàppandoo pour liggéey mu des ci réew mi aussi am lu dem Égypte gagnant gagnant